mercredi 5 mai 2021 mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di amati mbégte rek dellusiwaat ak yéen ci seen journal de l'arène ma ci ànd nag à chaque fois rek ki nga xam ne moo di Babacar comme ni ma leen koy waxee lépp loo xam ne rek jóge ni ci làmb ji dinañ toog fii daal di ko waxtaanee faram fàccee ko dal di leen ko baaxee Babacar nuyu naa la. fay naa la Ami. yaa ngi noos. waa sant naa yàlla de bu baax. waa maa ngi sant yàlla bu baax tey dama a sol lu xaw sàcc maron nga dem sol sa chemise. waaw non man de dama foog ne loolu loolu suy dëdee am rek si yéen la ko mais du ci man. Mm, ci yéeg-yéeg bi la quoi au contraire may sentir xam naa ne. ah ñoo lay sentir. kon léegi yow sentiroo ah, yow sentiroo ma yow. non yow wax nga ne dañ lay sentir yow. sentiroo yow ndax dama la. ñoo ñun dañ lay sentir. da ngeen may sentir. waaw dama leen di sentir. Ah, kon baax na ay sentir ay sentirante la <laughs> kon neex na. y a pas de baax na voilà mbokku téléspectateur yi ñu dem seetaan revue bi daal si dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 5 mai 2021 dañu ñëw ki yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglekaay bi di sunu làmb tey xatam mu njëkk lëm ca xëy fesarati mooy combat royal ba war a dox ci diggante Modou Lo ak ka nga xam ne nii moom moo di Ama Baldé yëglekaay ba nag moom nee na le 25 décembre ca la ñu fas yéenee bëre ñaari mbër yi moo tax sunu làmb xëy tey sampob laaj maanaam Luc Nicolaï na muy def wala réussite ba nga xam ne ñu ngi koy xaar ci moom pour le 25 décembre ca cadeau de Noël ba nga xam ne fas na ko yéenee andil amateuru làmb yi sunu làmb tey moo ëllëg moom yëglikaay bi di sunu làmb ñaari mbër yoo xam ne ni tamit ku ci nekk bëree nga ak Modou Lo muy Gris doo ak Lac de Guiers numéro 2 ñoom ñaari tam seeni photo fes na lool ci xët wu njëkku yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb la ja am nag mooy yëglikaay bi na combat la boo xam ne daal soo bëggee dégg-dëgg daal fi mu nekk nii depuis bu yàgg ba tey ñu ngi koy wax maanaam diggante Gris ak Lac yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy ñëw tey wax nu loolu moo tax nag yëglikaay baa xëy tey di laaj ban promoteur moo nuy monteel bii komba manam diggante pënseur waalo bi ak ka nga xam ne ni ab xeexkat la di tigre de face ba nekk face muy giri ak Lac de Guiers 2 giri nag moom xaarut de mbir ya sedd ndax wax na giri la mu xamal Lac daal nee na ko moom day bu óosee ba jël sama avance nee na su keroogee day dana metti ci moom lool wala mu wex xat wala boog jàpp na ne sax lak amul fitu lekk sama avance Gris Bordeaux moo wax lool du sama ay wax mu ngi ci yëglikaay ba nga xam ne moom mooy sunu làmb ki lekkub avance bay wax mooy caat bu booy bambara caat nag moom ka mu xëy di waxal mooy mut ja ginnaaw ba mu jógee États-Unis ka fa mooy prince Sissoko caat nag la mu xamal mut ja leen na la ne na ko li am ba des day fa ma nekkoon ci États-Unis boo yeboo nga waaj yow mut ja ndax la ma la dencal andil la ko fas yéene la koo ganalee du neex ci yow ndax xeex dong laa doon jàng fa nga xam ne nii moom moo doon ci réew mu États-Unis ma nga xam ne nii fa laa nekkoon ay weer namm naa samay loxo fi mu nekk nii ba pare bu arbitre rek jàppal ne moom korosé yi foo xalaat dana fa jóge jëm si ci sa kaw caat moo xëy tey di waxe nu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom yëglikaay bi daa xëy ñëw wan ñu leen ci fotam ci fot xëtam mu njëkk muy ñeenti mbër yoo xam ne daal soo bëggee dégg-dëgg gëj nañoo wàcc ci làmb ji takk ngemb muy lagros bu Fass Zarko bu Grand Yoff Jordan ma nga xam ne mu ngi ca xam sa cosaan ama neex bu tëngéej mu mel ni ki nag ñeenti mbër yi yëglikaay bi daa jàpp ne daal moo gét mooy ki nga xam ne nii moom moo leen sauvé ndax nag nekk nañ mbër yoo xam ne nii daal amateurs yi namoon nañ leen gëjuñ leen a gis lool lool seen i jafe woon trop waaye moo gét moom loo ci mën a dégg muy sénégalais ba nga xam ne nii mu nga ca Amérique di fa dund wala sax di sénégalo américain moom moo di ñeenti mbër yi bëreloo leen wala boog fas yéene noonu bëreloo keneen koo xam ne nii moom demut Amérique waaye fa mu doon jéem a dem mooy Espagne di Pàccam di am mbër dëkk ci Mbuur Pàccam nag moom la mu xëy daal di wax mooy seen traversé ba nga xam ne moom lañ doon jéema def di dem Espagne ca gaal ya pàccaam daal ne na méttiwaay ga foo ko takk weesu na ko yemu ca de ne na boo nekkul góor yàlla dëgg-dëgg pire góor ne na mbir ya moom doo ca duggee doo ca génn wala boo cay génn maanaam doo forsay dal ndax nag da daa jàpp ne lu méttee noonu monsieur su koo gis wala pour nga dund ko lu jafe la ci góor ne na kon góor dëgg dëgg moo mën a dund traversé booba nga xam ne moom ngay départ fii dugg ci gaal wutali Espagne pàccaama xëy tey di nettali mbir ya te jaar yaar ya ak jafe-jafe ya nga xam ne ni moo ca am keneen koo xam ne nii moom loo ci mën a dégg moom ñoom mbër yooya daf leen tegalab xaalis ñuy bëre muy jax jax nag moom ginnaaw bi mu tojee fa nga xam ne moo di gaal gi balaa ñoo woor fa mu jëm nag parce que yéenee toj yëglekaay bi ñëw na ci muy le 16 mai ndéwénal daal double XL moom la ñu andil fa nga xam ne nii moo di ca Fatick 3 millions la fa teg la mu fas yéene def nag mooy honoré Matar Ba ministre de sport cëb dëkkam nga nga xam ne moom moo di maire ba moom Matar ba ka ko fa yéene honoré nag mooy jax ak ñetti millions yoo xam ne daal da ko faa tegalati mbër yi ngir nag bëre simple ba ku daan yóbbu dañuy romb Fatick dem ba Kaolack maanaam ab CRD ngir ñaar fukki yooneelu benn wala boog ñaar fukki yoon ak benn ngir waajal drapeau de l'État mel ni ki yooyu fi mu nekk ni ñu nga ca CRD ba nga xam ne nag ñu ngi ko doon amal maanaam ab CRD cérémonie d'ouverture ba nag lañ ca fas yéene def daal maanaam lenn la maanaam daal kirtiilu saarum la ñu fas yéene wane bu baax a baax a baax maanaam ci chef de l'état koo xam ne tamit yàgg naa bëggal waa lamb moom mi nga xam ne ni soxna la mën a way lool bañ tuddee ko la diva di maye ndep ngom maanaam sargal lañ koy defal fa nga xam ne nii moom moo di cëb dëkkam di Fatick loolu nag yëglikaay bi mu ngi nuy xamal ne la quinze mais lay doon yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu moom sunu lamb leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci mooy Fra ca Toussier ak itam taxawaayam ci dialogue islaamo chrétien bi faraa daal maanaam la mu def mooy jël ay bagages yu baax a baax a baax ci ay ndogu jël yóbbu chrétien ya wala boog jullit ya ñu ne déet ne waay te balaa moo dem ca jullit ya fa mu njëkke mooy ca église ba Fra. lii la def moo tax yëglikaay bi ñëw ca moom ca tuus ya ka mu dëkkal nag yëglikaay bi ñëw na na day moom boo bëggee dégg dëgg mooy doon mbër mu njëkk mu njëkk a bëre ci jàmbaar wrestling academy muy garga numéro de le 9 juin ci combat bi dox ci digganteem ak Mama Lamine ex mbër mi nga xam ne moo nekkoon ca dóor dóoraat yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ne ki noonu ñeneen ñoo xam ne tii tamit lañ daan def daal réussir nañ ko muy les jeunes amateurs ak seen ndogu ya yëglikaay ba xëy na tey wax nu lu mel ni ki noonu moom suñu làmb waaye li am ba des daal mooy ñaan jàmm ci réew mi rek ndax nag koor gi fi mu nekki nii daal tey daa mel ni day gomis ah mbir yaa ngay sore de mu ngay bëgg a deex jeex de waaye loo ci mën a dégg weeru koor moom neex na ndax la ko gën a neexal mooy la ma cay gis ñu di ko dunde nun sénégalais bu nu ko continuer woon toujours xalaat na réew mi dina neex mooy dimbalante ba maanaam bokkoo gi lu nu am séddoo ko jokkalante bi waay waay bu weeru koor wi demee tamit nunu continuer ci loolu ndax nag loolu mooy sunu baax nun waa Sénégal ay Aïcha loolu moo nekkoon revue bi tey ñu daal di ñëw nag ci journal suñu làmp làmb Babacar ci xatam bu njëkk euh, ci lim dellusiwaat rek moo di combat Modou Lo ak ki nga xam ne moo di amaa Baldé euh, c'est pour le 25 décembre incha allah ñuy laajte nag ndax Luc Nicolaï dina réussir li nga xam ne moo di cadeau de Noël la. yàlla na ko réussir. allahumma amin yàlla na ko réussir. Mhm. parce que ku sumbu bés. Mhm. Ah, li ñu lay ñaanal mooy nga réussir ko. léegi li kay bi nag daa sampab laaj am nañ ci yàq yi na. et mhm. ñu ngi ko koy ñaanal parce que li moom mi ci dugg jël ay millions joxe. ay mbër jàpp dem CNC régulariser combat am. Mhm. jàppub datam bañ jox datam muy le vingt cinq décembre. Mhm. defe naa ne kon moom la mu bëgg mooy réussir ko te yàgg naa réussir bés yu mag. Mhm. ndax Luc Nicolaï réussir na bés bi nag du doon information. la ca des kay la ñuy wax mooy nekk information te loolu ñaanaluñ ko ko. dëgg la muy ñàkk gaa réussir mais yàlla na ko réussir. am nañ yàqi ne dina ko réussir parce tamit. ku ne xam na ne combat bi yàgg na yoon trop. mais ko waral loo mbir duñ ci jamono ba nga ko bëggee te warul ne mhm. tamit du sotee na ko bëggee bés lay xaar rek mhm. xëy na bés bi ñu ci doon xaar mhm. mooy tey le vingt cinq décembre bi yàlla nañ ko fekkate tal ko mu tëgg ko ñaari mbër yi bële bëre que le meilleur gagne parce que tamit combat bu mag a mag a mag la tëgg parce que combat royal ku ko tëgg yow tëgg nga la sommet te muy dëgg des combats. Mhm. waaw am na solo euh, quel promoteur pour monter Gris Lac 2 seen combat ñoom ñaar. Mhm. xaar nañ ko boobu depuis de mille dix-neuf ba léegi ñu ngi koy euh, nas mais ki nga xam ne nag moo di Lac de Guiers 2 moom nee na il n'ose pas prendre mon avance sur cachet. waaw lool ci mën a dégg daal ñoom ñaar mhm. seen combat waxuma sa waaye lu ko jiitu yàggees na bëgg combat bi kañ lañuy mhm. bëree est-ce que danañ bëree nangam sàngam ah nag ça veut dire que ñoom ñaar seen combat combat bu ñor mhm. et puis itam combat jànq moom comme ni ma koy faral di waxee parce que ñaar ñu mësul bëree lañ ñaar lañ ñoo xam ne ñëpp dañ ne ay xeexkat lañu kon defe naa tey nag dafay jot promoteur boo xam ne intéressé na la. Mhm. war nga mën a jël combat bi tëgg ko te xalaat naa ne ku ko tëgg da nga am combat bu neex. muy kii di ak lat mhm. loolu moom leer na moom. ku ko tëgg. dëgg dëgg dëgg dëgg. combat la loolu mhm. das koy xool. noonu la noonu la fa demee. <laughs> voilà bu njógee jógee foofu rek ki nga xam ne moo di caat moom euh, dal dina ñib si rek fa mu nekkoon di États-Unis moom nag mu ngay euh, dankaaf ki nga xam ne moo di moo ja moom nee na j'ai plus travaillé là-bas la bagarre. ci xeex ma daal la doon gën a liggéey ba mu nekkee États-Unis mu jëlay dànkaaf waaw mooy li ma la wax rek làmb moom boo si jëmee mhm. te yegg a góoji dëkkante day am waxante day am bataille de communication bi mhm. lépp psychologie bi psychologie bi yooyu yëpp day bokk si mhm. biir mais bon le sursi nag la mbir yi di leer comme nekkoon na États-Unis pendant six mois defar na fa ay loxoom xeex la jàng ba mokkal ko ah ma bismillah waaw waaw bu ñëwee wane rek ah waaw bu arbitre moo ci am solo bu ñu at bu génnee seen diggante mhm. dinañ xool kuy loxoom gën a ñaw wala ko xeex mhm. ñu ciy profité du nuyu le promoteur prince si soxo suñu frère mhm. moom moo tëgg combat ba muy ko combat bu neex a neex tëgg na tamit fëgga la ak armée loolu lépp prince moo ko tëgg am na solo waaw prince si soxo bu ñu jógee foofu nag diggante Lac Rose Zarko Jordan ak Amaneex moo géet ñu jàpp ne daal mooy sauveur bi moo leen sauvé waaw parce que loolu moom mënees na ko waxee noonu parce que li mm-hmm. tax mooy ñoom ñeent ñi ku ci ne mm-hmm. gëj nañ la gis nga bëre mm-hmm. te ku ci ne mbër nga bu nga xam ne marqué nga sa empreinte si làmb moo xam lacrosse la Ségrim ak Fass Zarko Grand Yoff te defil ba Jordan mi ah, ak ku ne xam na ko ci biir Pikine moo xam daay si bul faale ba tey xam sa cosaan ama neex ak Rufisque mhm. ñoom ñëpp ñu nekk ay mbër yoo xam ne vraiment dañoo bokk ci làmb mhm. marqué ci seen empreinte parce que du ñu ay mbër yu ndaw dafa am lu ñu wone defe naa tey moo gét mbër yi mu tëgg kenn du ne tëggoo ay mbër ay mbër kaamil la tëgg mhm. dafa fekkee ka ne toogoon nañ benn moment boo xam ne gisatuñ leen ñu bëri seen comme jafe woon na loolu nag li ko indi woon ku ne xamoon na problème yi amoon jafe-jafe yi jàppal bàyyil mais nag yàlla moom jafe-jafe yoo gis a mu mhm. neex mhm. defe naa mooy li am nii tey ñoom ñii tey gëjës na leen a gis mhm. mais yàlla dogal na moo gën ñëw jox na leen ku nekk avance ba jàpp seen dati combat dëgg la mbër mii di Pape Thiam bokk nag ci ñi nga xam ne dañuy jël euh, gaal gi di dem Espagne moom nag rescapé la ci mu xëy rek di wax nag ci difficulté yi nga xam ne ñu ngi ko doon dund bi nekkee ci gaal gi moom daal nee na foog nga nekk góor dëgg-dëgg pour mën a dékku la xewoon ca ca mbir ma rescapé de mooy ku rëcc xam naa ne waaw ku waaw koo xam ne da ngaa rëcc. Mhm. wala ku moy. Mhm. bon li ci am solo nag mooy mm, ñoom mbëri yi wala ñi jeunes yi nga xam ne dañ doon jël ay gaal di mhm. dem en Europe. wala feneen fu ñu mën ti dem. ñun duñ ko conseil kenn duñ ko digal kenn moom Pathiam mi nag mbër la ba nga xam ne xam nañ ko ci li ci làmb ji rawatina simple bi mu nekkoon ci xale bëri na foofu ci diwaanu Mbuur ba mu dëkk mbër yoo xam ne dem nañ ci gaal yi ñenn ñi yegg nañ ñenn ñi faatu nañu mhm. ñi ci faatu ñu yàlla neen yàlla xare aljana te leen mhm. ñi ca des tamit rëcc ah yàlla nañu réussir la tax la la tax ñu doon ndaw di dugg Espagne mhm. naa ne dugg ci gaal moom ami jëm Espagne waxuma la doon góor sa baay da nga doon góor ak pilis géej da amul banqaas ndax man na ma man man man géej man géej dara da man daal géej boo ci bëggee dégg da ngay dem sax non man eh, eh, piscine sax est-ce que da ngay a <laughs> ci boppam ah. ndox laa man daal ay wàllu parce que foo xam ne moom foo jàppandu ah doy na waar de ami loolu loolu waxuma la doon loolu kay góor ak ngay doon loo xam ne day daw gaal gaal gi naan nii ah. man bi ma fi demee ndaayaan fi ak Tyson 2 mu dugal ñuy dugal ñu si gaal di gi di di dem ci biir géej gi ba sori yii yooyu ami mm-hmm. encore une fois daal loolu duñ leen ko conseil mm-hmm. ah li am na xam naa ne foog nga doon góor dëgg mm-hmm. mais autisme dañ ciy profité di interpeller suñu autorité sénégalais yi rek ñu gën a farlu ci xëyum ndaw ñi gën a ut lu ñu teg ci seen ay loxo ndaw ñi tamit ah jéem tamit bañ a rek toog di seetaan. Mhm. yàcc di tamit amul njariñ. kaas bu ñëw sama bopp laa koy commencé yooy tamit de góor tamit du doxe noonu. góor yàlla boo xëyee kër gi sax waroo fi nangu sax yendu même boo mhm. amul loo defe sax génneel kër gi ba ngoon nga ñëwaat. Mhm. yaa ngi dégg kon defe naa ne ñoo ku ci nekk def la nga war a def rek. ndaw ñi jéemawut ci lu ñu jàpp. état bi tamit jéemut lu mu teg ci seen ay loxo. ndax état tamit bu lay jox dara pour man day fekk yow nga am loo man am solo ba mu fekk la ca. mën laa daal di jël. dëgg la mm-hmm. bu jogee foofu nag waa CRD ñoom seen vingt et édition drapeau chef de l'État ñu ngi koy amal tey cérémonie ouverture bi incha allah fële ca Saalum lañ jiital rek comme thème mooy valoriser li nga xam ne moo di culture Saalum. non xam naa du am tey parce que koor gaa wax nga dëgg cérémonie d'ouverture bi ci culture mhm. programme ci mhm. Mhm. a naa loolu tamit vraiment lu am solo la parce que dëkk boo fa demee dafa organiser lu toll ni drapeau chef de l'État te ku ne xam ne ne moom ah ci Sénégal bokk na ci li nga xam ne ni benn zone la boo xam ne ci réew mi mhm. wax dëgg yàlla ku ne xam na ne ngoyaan nga ca Saalum mhm. mais su ko waxaale bari na yeneen ak yeneen yoo xam ne mu nga fa xam nga ngoyaan yow ah baax daa ma di ma dëkk ci réew mi di sénégalais ah, doon dem bawol ba bul di guddee waaw <laughs> ah ñoom ah, ñoom Habib waaw waaye nag suñ da adde ah, waaw parce que moom dafa saf Saalum <laughs> waaye nag waaye nag bawol bawol bi da ciy wax waaw loolu la yàlla dogal waaye loo ci mën a dégg daal uh-huh. euh, yàlla na yàlla dogal daal ñu yegg ci ouverture bi am ci jàmm jeex si jàmm drapeau chef de l'état uh-huh. ah, bi ci culture Saloum vraiment uh-huh. loolu dina nekk lu neex na parce tamit dafay baax ñuy xamal réew mi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk réew mi rawatina ndaw ñi mel ni man pour ñu xam ne que Sénégal am na culture am na lu mu moom pour que loolu ñu mën ko sàmm parce que loolu daf ñuy dimbali ci bu ñu waree avancer dem si kanam ne moo di Jax xaar ba ndéwénal XXL a Fatick le 16 mai incha allah. waaw bu la neexee nga ne double XL. waaw double XL mooy XXL. muy 3 millions yi mhm. loolu ba tey mën na ne. loolu defe naa ne c'est normal parce que Matar Ba moom honoré ko ci biir dëkkam. mu mhm. nekk ministre des sports. Mhm. en même temps nekk tamit ki nga xam ne moom moo yore. maire yi Fatick. defe naa ne wala boog mu masoon doon maire ba di moins mhm. defe naa tey bu jàk si demee fekk si ko foofa mhm. buñ korité ba ca quelques jour di le 16 mais mhm. teg fa 3 millions defe naa loolu tamit vraiment lu ne lu lu am solo la ñuy ñaan yàlla yegg si rek di encore une remercier Jax parce que Jax moom vraiment lu la waaye mën a wax moom ngi dundal làmb rawatina làmb simple teg ay miss di defe naa ne balaa bi saison bi ubbee ba bi ñuy wooree li mu génne ci xaalis teg ko ci ay mise mhm. bëri na trop trop kon defe naa mhm. le 16 mai boobu daal bu ko kenn jaawale 3 millions la mhm. drapeau Matar Ba ak jax si ca Fatick waaw am na solo ki nga xam ne nag moo di suñu yaay euh, di euh, Maye Deb dañ ko war a sargal le 15 mai incha allah fële ca Fatick waaw loolu am na solo kooku itam defe naa ne delloo mbaatu sa ca ndaala la parce que defe naa Maye Deb ku koy sargal tey ci làmba da def la nga war a li tax mooy ah waayu làmbu séréer am na lu bëri lu mu ci def de mhm. mook ndem si yàlla sax di juuf yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana mhm. ñoom ñaar defe naa tey ni ngay déggee mbay ak lum ci mhm. di ñuy déggee nday faatu adama jëli di ñuy déggee Agnès doomu maye na ko yàlla xare aljana ma ci profité ko jaale ay doomam rawatina layti ah mais na ko fi yàlla yàggal yàggal fi ñëpp defe naa ne le 15 mai boobu moom vraiment ahlu lamb yépp ci war a dem parce que itam liggéeyal na ko lamb man mii dem naa ba këram jël ko fi benn reportage moom maa ngi def ngom mi ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu ak njabootam rawatina doomam di suma soppe Agnès moom itam jël mm-hmm. relève bi mm-hmm. a a a <laughs> ah, moo di Malaw Seras moom euh, fi nekk nii rek euh, la muy déclaré mooy pare na pour rek euh, ki nga xam ne moo di Modou Anta ak Wuli 2. waaw bu gisee promoteur de combat la ndax Malaw ci làmb ji la bokk. te bàyyi mhm. waaw dañ ko war a jox avance. Ah, mu bëri ah boo amee doole rek ñëwal. waaw làmb ji moom ñu ni ubbi na. noonu la fay demee te avance yaa ngi jëlaañoo. noonu la tey euh, suñu làmb ñoo fasaloon yooyu la xibaar mu daa jaar fa daal di ndar képp looy tàggatoo. sant yàlla ah. Mm. kontaan ci ñuy suivre di leen remercier encore une fois. Mhm. rawatina suñu sopp Cheikh Bass. Mhm. du ma ko fàtte. Cheikh Bass macha allah sama xarit bi ñoom Adama Ndiaye. Mhm. ah ñoom tuuti yaay Sarr Khadiros ñoom ñëpp maa leen di bëgg di leen jaar. di leen ñaanal jàmm. di nuyu sama gars yi waa Italie ñoom dongo waa ñoom dongo Fall Italie mhm. ah di nuyu ku mel ni sëñ Fallu ñaa ca Maroc sama xarit boobu mhm. sama doomu nday jooj du ma ko fàtte waaye Omar Tawa tamit borom Mars Aslem du ma ko mos a fàtte moom du waaw du mën a nekk mhm. maa ngi koy déedéet maa ngi koy bu baax a baax <laughs> ñuy suivre mais soppe Babacar yi fans club bi maa leen di bégee cent pour cent bi ñoom grand laay démb rafetlu naa seen taxawaay salon bi met Pape seen doon am ab rencontre bu mu doon def ak les jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci commune am mhm. invité woon leen ndogu mhm. sama jëmm tax ñu déplacé wu ñëw ba ah, comité sénégalais des droits de l'homme kon grand laay Pape Ndiaye mhm. Cédric ak Pablo vraiment kontaan naa démb ci acte boobu ngeen def pour kan pour Babacar te ma foofu liggéey gu ma lu toll maa ngi nuyu samay waa fan club waaw <laughs> kon maa leen di nuyu yéen ñëpp daal gomis ci nga bokk waaw di nuyu képp koo xam ne yaa ngi suivre <laughs> am ah, na Gomis xule di la wax tey da nga tigresse la ah, tigresse waaw <laughs> tigresse ak tigre ku ci tigre noonu ah ok man wax nga dëgg fàtte woon naa li ma takk sax de man may tigre la tigresse noonu la doole <laughs> jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi ñemewu ma laa ëpp doole nag ëppal rek amul problème. ma ëpp la doole waaw amul problème dama koy nangu. <laughs> am na solo fi la ñuy daal di yem tey nag ci euh, journal dalaa l'arène di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf.